te jàpp naa ne moo ko gënal ndax lu ko waay mën a defal dana neex ci moom waaye lu ko doomam defal mooy daq léegi nag naka la jigéen war a mën a def ba doom ju baax ni mu war a def baam am doom ju baax mooy dañoo nekk ci fan yi màggali poroxaan te bu ñëwee poroxaan nag dëkk ba taxul ka fa tëdd tax ndax ka fa tëdd jigéen la joo xamante ni la mu warloog boroomam def na ko lam warlo kilifam def nako lam warlo njabotam def nako lam warlo ay dëkkandoom def nako muy jàngat bo am solo motax nit nit fay am reference nit day am kay ñi ni dañuy magali wala dañuy dañuy dem magali soxna jaarata proxan day day li soxna allah nañu jangat jikko soxna allah mariama ndax daari soxna jaar yi bari lool ndax ñu ngi koy roy wala roy ñuko loolu mooy waxtaan ndax nuroo lay yére baax na waaye li ko gën mooy nuroo lay xol te yëpp bokk rafet ndax soxna jaaratullahi xolam xol bu rafet la amoon mën a dem poroxaan lu yey kaar ki biis ak yooto baax na loolu waaye déggal sa borom kër déggal sa borom kër moo ko gën ndax kee ñuy fekki ku déggaloon kilifaam ba musta yorante moom ci dara du di waaw mu deet du ni deet mu ni kon ñi mëna dem wala ñi jigéen ci réew mi na gennu jigéen ko am gi bis bi soxna jaratullahi am ba nu aduna jigéen ju ko am do ko gis ta lan moko ko may moy liggéeyal boromam top ndigalel borom kërëm taxawu ak njabotam dimbali ñep moko may li kon mbolem kuy jigéen na jël ay bind ak jàng ci jëm ji nga xamante ni ci fanam lañu nekk ndax fan yi ñu koy fàttali di ko di ko màggal euh, ñu bàyyi xel tamit naka la jigéen di demee wala ñiy dem poroxaan nañu xam ni barab ba du barabu xalangu wala bërëngu du barabu for ay sakar di fas ak ficc ndax dafa am yoo xamante ni day xaw a niru jaamu yu xërëm te Cheikhul Khadim radiyallahu anhu loolu la doon combattre kilifa yi baax yi ñëw yëpp Seydul Xaaji Maalik loolu lañ doon combattre soxna Jaaratullaah yi nag jëkk ci farata la nekkoon ak sunna ak ndigal borom këram kon képp ku fay dem dafa war a xalaat ki fi nekkoon nam fi nekke woon ba am lii mu am nga jéem jaaro yi noonu la ñuy màggalee Poroxaan waaye du xalamu du bëriwu du fa sak fi ci ta tok ci tar garab di xànc dedet ka fa nekkon psychologiquement non lañu wara magal xono màggale soxna Jaaratullaah waaw waye dan fi ku fi xalam ko ku fi beureng ko to bëri ni suñu bokk jigéen ñi koy def dama jàpp ni lolu njumte la ak ñi jité daara yi nañ leen fatali lolu xamni lolu du nu ñuy màggale soxna Jaaratullaah mariam ni ñu koy magal dal moy jàng ay kamil yu bari jàng ay xasida def ay siratu ala nabi dimbele waye surtout nak nga deg sa ndigalel borom kër na nga bàyyi ci keur ga mu jox la ndigal ku ñu jox ndigal nak man nga dem waye ku sa borom kër joxol ndigal nga tok ndax soxna jaratullahi mariama dëkk won proxan kon lan moko fa yob ndigalal borom keuram ak taxawu borom keuram ak jappale ko ci njabot gi bala bëgg ci bëgg ko ci njabootam mu am ko moo tax sëriñ Masamba Mariamu ñi nga xamante ni dafa bind ci soxna Jaaratullaahi te it bëri na ci ñi nga xam ne moom ñi nga xamante ni xëy na dañuy bëgg di wax lu leer ci soxna Jaaratullaahi te bañ ci tatone bañ jox ay xissa ndax man ngaa yokk wala nga wàññi e, yooyu sëñ Masamba nag dafay def ay am mbind di ay way yoo xamante ni da koo jagle soxna Jaaratullaahi di wax ay jikkoom mbind mi Sëriñ Tuubaa gis na ko ba validé ko ndax amna ci ay baat yu baat bo xamanteni comme lu melni ni darair sëriñ bi moko soppi def ko xarair kon mu commencer nak di sante borom hamdan liman jaala al islam wujdaana wal kufra wal jahl qusran wa fuqdana non la ko topé di sante borom subhanahu wa taala mi nga xamante ni moo ñu yënkawal l'islam waye def ak kéefar ak ak rir di perte nga mo tax rir perte la soxna jaaratullahi réerul woon ñaama yaroon réerelu leen réerul woon ñaama yaroon réerelu leen kon nañu xam ne ab jàngale jàngalekat la soxna jaaratullahi mariama nañu xam ne jaami ko tu boroomam la soxna jaaratu mariama waaye ku man boroomam boroom këram la ku man këram la ku man ak njabootam la ku manoon ñu mu seqaloon àdduna la ku manoon ay dëkkam la kon jigéen ñi da ngeen jàng ci yooyu ñeenti jikko yooyu yooyu yaakaar naa bu leen ko jàngee rek li ngeen bëgg ci doom ju baax ngeen ko am incha allahu rabbi e, julli jënt bi alayhi salaatu wasalaam nga xamante ni mooy sangu ñëpp e, ak ay saxaabaam nee nag gannaaw boobu wa baadu falxasu bil manzumi matxatuna li samxatin samiyat bijaaritin ana may tagg di kañ ki nga xamante ni mooy soxna jaaratullahi mariama tudul jaara jaara mooy ku dëkkaleeg boromam turam dëgg-dëgg mooy Mariama Bousso ah, waaye jaaratullahi bi mooy na mu doon jaamoo boromam ak na mu nekkoon ci diggaleel boromam dëkkaaleeg boromam moo tax ñu ne jaaratullahi Mariama wala arabia jaar al mooy ki dëkkaaleeg boromam. kon jigéen ñañ fexe bay fexe bay dëkkaaleeg seen borom ci nga xamante ni mooy tax mooy moom la suñu borom digle mu ni soxna jaaratullahi moom mu wax nee na asiratin watanan sarifatin nasaban karimatin xasaban tafdiluha baana mu ni eh, ci réew mii la dëkk kon du juddi jéeri du ko kenn xamul ku ñu xam ne bokkam la ci wetu ndey ak wetu baay waaye nag ku tedd ay bokk lañu ay sërif lañu waaw nga ne lem daal bir na leer na waaye nag mutiatin rabbaha wa sayqa sayidaha eh, sayqa sayidaha ardathu afaaluha lillahi mu ne ku toppoon boroomu këram la euh, ku ku toppoon euh, boroomam la mutiaatin rabbaha ku toppoon boroomam la parce que jigéen ñi nañuy jaamu seen borom te di ko topp ci ay ndigalam ku bëgg doom ju baax fexeel bay jaamu sa borom subhanahu wa taala ndax lépp lu baax lépp mu ngi ci topp yàlla safaan lépp mu ngi ci mooy yàlla bañ ko topp mu ne ko toppoon boromam la waaye ku defoon kilifa muy kilifa la waaw ah, jigéen ñi def kilifa muy kilifa waaye jël si kilifa def ko moroom wala nga def ko fobeerukaay wala morsi minaas musiba la te loolu xew loolu li xew nag baaxul day tax eh, doom du baax ndax dañuy doom ñett la doomi buntub lal doomi pujub lal jëlawub eh, doomi digub lal doomi pujub lal mooy doomi buntub lal mooy borom ndey yu nangu jigéen day nangu day nangul borom këram ci lépp lu dul li li sharia aaye mooy moo tax jigéen dafa waral a nangul borom këram ñu ni doom jooju moom ndax bëri na doom yoo xam ne fañ leen defar yàq àggu fa waaye bëri doom yoo xam ne fañ leen yàq defar àggu fa waaw bëri na kuy war di taxawaalu bunt bu mu fëgg ñu faf kaste ko ba ko ndeyam yàq yàgg na xanaa xamu euh, ci ma leeral tuuti ci secret yi doom du baax mbooleem ndey nga am doom mu toll ci namp fexeel ba bu mu namp merum baayam parce que bu ko nampee posan la ci moom day yàq doom fexe ba may loo baayam taxaw loo ay sir yu jëm tiim doomam ju sa doom ju ndox di ko nampal ci merum baayam bari na ko yàqute loolu la yàq kon nañu fexe ba jigéen ñi nañu fees seen place te seen place mooy muñ jéggi ndigal daw ay tere te yërëm seen borom kër te jub te jubal te lépp ngeen teg ko ci chariatul muhammadiya loolu boo leen ko defee rek eh, eh, mucc dana am kon ku defoon borom këram muy kilifa am la soxna jaratullahi mariam ku bàyyi borom xar ku bàyyi xanga ak mbaax mooy bul xaar biñ digal la la nga wax def def ko ah ndax li gën a am solo ci jigéen mooy mu jàng borom këram ba mokkal ko lu jigéen jàng loolu borom këram jàng borom këram gën moom waaw xam la mu bëgg lépp xam la ma bañ lépp la mu bëgg lépp nga ko di ko def lu jiitu mu la koy wax la mu bañ lépp du la ci seen ba di la ko tere noonu lay mën a sëy waaw soxna Jaaratullaahi jàngal na ko ñëpp moo tax yërëm mbiram yëpp sunu borom subhaanahu wa taala gërëm ko mu ni soxna Jaaratullaahi loolu walam tuhin ahadan ولم تسن أبدا ولم تبن أمدا من غابها مانا من حاولوا حاجة في ملكها وجدوا نجح الحوائج لا يلقون حرمانا من عيبوها بلا قول ولا عمل يثري عليها فكان الله ديانا إن زارها جائع أو ظهرها ظمئ ثار بما عندها ثبعان ريانا يا طالبا نائلا فاسأل بجارتنا منين فوفو آه mësta dooy dal kenn jigéen ju baax walla ku bëgg doom ju baax wala ku bëgg ak mugg rafet ak sa ngërëmal sa borom bu dooy dal mu mësta dooy dal kenn du ŋàññi kenn moom soxna jaaratullahi mësta bécc ngeen ne kenn képp ku ko ayibal ayibul yaa ayib sëñ bi Samba Diop Mariam moo wax loolu képp ku indi ci moom nag yitte dana ko faj te du ko waxaat keneen waaw képp ko xif wala nga mar bo ñewé ci soxna jaaratullahi da nga di da nga rek waaw képp ko xamanteni ku reer nga ndax jangale kat lawon ku soxla lu mu xam la ci walu diineem ak walu këram bu ñewé mo jangal ko waaw waaw képp ko soxla ndimbal bu ñewé ba dimbali ko ndax wax ju neex sax sarax la ko ko soxna jaaratullahi waaw ya, moo tax eh, mujj gi réew amal bilaadu jamian mat xujaratina yamlikuha yom nan wa iyana mo tax rew mi kap ci diko tag may fan yi ñu nek won jigeen ñi na ngeen baye xel eh, exemple ngeen ni référence ngeen ni model ngeen ni bo xamanteni kep ku ci ben eh, at mu ñek nga jël ben jikko ñenti at yaakaar naa rek bo boo demee boroxaan eh, da nga da nga la nga bëgg ci sa njaboot danga ko am waye la nga bëgg ci digënté sa borom ko dum ko la nga bëgg ci digënté sa borom dum ko kon ñeen jigeen na ngeen fasiyene dinañ soxna jaaratullaahi te bañ def nag e, poroxaan slogan wala daayira soxna jaaratullaahi slogan bokk naa ci rek déedéet nga xam te bu sa jëkkër waxee benn nga wax fukk ba war ko lu mu bëgg nga bañ ko lu mu bañ nga bëgg ko loolu ko koy séyee dem ci soxna jaaratullaahi dalay sonor dong ndax du la jariñ dara waaw liy jariñ mooy nga jëm koo roy ndax rasulullaahi alayhi salaam sunu borom mi nga xamante ni moo wax ci alxuraan ni yonent bi modèle la laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana bi moom modèle la soxna jaaratullahi modèle la modèle nag danga koy ndax dem poroxaan baax na lool ku mën a dem na nga waaye nag na fekk nga nekk ci kaw ndigal xatt sa ndigaleel borom kër ba pare dem kooku soxna jaaratullahi soxlawu ko waaw na ngeen yooyu na ngeen ko bàyyi xel bu baax a baax te boo dem boo leen demee foofu it la ñuy def ci ziyaar ya booy ziyaare kilifa gu toll noonu da koy njëkk ñaanal waaw maanaam ñaan waaw da koy ñaanal waaye ñaanal sa bopp ñaanal ko waaw taasu ci barkeem ndax yàlla mooy maye mooy xañe ku dul yàlla mënoo maye mënoo xañe ci dudul ndigal suñu borom subhanahu wa taala illa man azina lahu rahman yàlla ci léeg-léeg daal nag na ci ba tey waaw soxna jaaratullahi xam na ni ci gaa ñu baax ñooñu la bokk ci ci ci ci ci ci ñu baax ñooñu bokk jigéen la waaye taxawaayam bokk na ci jigéen yi gën a fés ci ndax bis bii moom jigéen ñu ju mel ni moom am ko ci àdduna ah duma ne amul da waaye man gisuma ko du mosaguma ko dégg wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.